Fatou Kidetal, euh, directrice exécutive de SOS Sahel au Sénégal. Euh, voilà, nous sommes là en train euh, d'organiser euh, un atelier sur, pour la mobilisation des acteurs autour du concept Je compagne Euh, donc, euh, avec nos partenaires du Nord, notamment SSL Luxembourg et SSL Sénégal, qui ont été initiateurs de ce concept. Bien sûr, on a été rejoint par SSL Burkina et nos partenaires donc, financiers. notamment euh, donc euh, euh, le Rotary ici représenté euh, qui également cofinance des projets dans le cadre des finances des projets que nous soumettons au ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg. Donc c'est la raison de la tenue de cette présente rencontre ici à Thiès. Donc le lancement du concept a été donc euh, dédié au Sénégal et notamment à la région de Thiès. Donc on a été honoré d'accueillir le lancement ici au Sénégal et à Thiès. Le résultat attendu, c'est juste, euh, je pense que comme son nom l'indique, hein, euh, c'est euh, donc le concept Je t'accompagne, c'est une plateforme collaborative qui se veut donc euh, qui veut mettre en place un réseau ici au sud. Au sud, cela veut dire euh, donc toute la bande sahélienne, mais aussi peut-être d'autres pays vont, euh, d'autres continents vont rejoindre. Euh, au nord également, c'est-à-dire les partenaires qui nous accompagnent dans les financements des projets. Euh, donc là-bas aussi, il y aura un réseau. Euh, et ce réseau, c'est vraiment constitué. C'est des réseaux de compétences en fait, que nous mettons en place pour accompagner le développement et le financement de projets de développement. Donc pour euh, appuyer le développement euh, de projets et le financement de projets donc, euh, au pays sahélien. Euh, voilà, et pour plusieurs catégories d'acteurs, notamment les collectivités territoriales, euh, les associations de développement, les organisations de producteurs, mais aussi les structures étatiques, notamment les directions sectorielles qui ont besoin de mettre en, pleu, en œuvre également leur plan d'action. On est donc là pour les accompagner. Nous avons mis euh, financé plusieurs projets au Sénégal, mais ce n'était pas encore euh, dans le cadre de ce concept. Ce concept, il C'est ce qui vaut l'organisation d'une telle rencontre. Hein. On organise la rencontre pour informer, sensibiliser sur donc, euh, les objectifs et la stratégie de la rencontre pour maximiser, donc, euh, pour appuyer l'éligibilité des projets donc, euh, portés par des acteurs auprès de notre partenaire principal qui est donc le MAE. Mais euh, en termes de financement de projets, développement de projets au Sénégal, SOSL en a beaucoup fait. ne serait-ce qu'avec SSL France, on, a, on avait sept projets financés. Je pense que AEMN est là, AEMN en était bénéficiaire, même Baba Garage en était bénéficiaire, la commune de Baba Garage. Avec notre partenaire SSL Luxembourg, nous avons financé trois projets et nous sommes en train d'initier un quatrième avec, euh, donc les, avec la commune de Baba Garage, bien sûr. Maintenant, nous sommes en train d'initier un projet avec la commune de Ngogom dans le cadre du concept Je parce que c'est un nouveau concept qui fait appel à des conditionnalités de cofinancement de projets. C'est d'où la nécessité de cette rencontre d'information et de sensibilisation sur les procédures. Nos thématiques d'intervention sont multiples. Hein. C'est des thématiques euh, donc, euh, qui euh, déjà intègrent les ODD, e les, les objectifs de développement durable. Euh, le, notre partenaire principal en a ciblé 8 euh, sur les 15 Euh, nous, donc, pratiquement, on s'aligne à cela et ça tourne autour donc, de tout ce qui est lutte contre la pauvreté, la sécurité alimentaire, tout d'abord la lutte contre la désertification, hein, parce que ça, c'est notre emblème, euh, et tout ce qui est donc euh, euh reforestation et, euh, et euh, voilà, au assainissement, bien sûr, surtout l'accès à l'eau productive et alimentaire par la réalisation de forages ou de châteaux d'eau. ndaje tey bi vraiment euh, am na solo parce que dafa ñëw pour lancer lu bees pour vraiment taxawal lu bees loo xam ne euh, du Sénégal rek moo ko moom mais Sénégal ak yeneen réew bu ngeen gisee donc sunu waa Burkina yi ñu ngi fi euh, c'est vraiment ñun SOSL ku ne xam nañu ci appuyer le collectivités territoriales mais sur les populations sahéliennes de manière générale ci lépp luy projet de développement yàgg nañ ko fi def depuis 40 ans dégg ngeen sànq président bi di ko wax président SOSL Sénégal ñu ngi liggéey ci loolu euh, SOSL Sénégal lañ ko créé yàgg na euh, président Léopold Sédar Senghor moo ko créé woon booba ci temps sécheresse ak euh, yi xewoon année 70 ñu doon ñëw donc di lutter à côté des états pour donc jàppale leen ci xeexu bekkoor boobu ak di apporter aide alimentaire mais dañu dem ba évoluer di financer ay projet de développement mais ci kaw financement boobu dañ daan financer te duñu woon laaj benn contrepartie ñi moom projet yi maanaam daaw ñoon apporter benn euh, contrepartie ci financement bi lépp SOSL moo ko doon def ak ay partenaires am léegi na dañoo dem ba mobilisation financement pour projet de développement ku ne xam ne dafa changer crise mondiale bi secteur yëpp la laal rawatina financement projet yi léegi tey mu ànd ñu tey ñu dem ba ñun xalaat concept bu bees muy concept je t'accompagne concept boo xam ne la dafay créer ay plateforme boo xam ne acteurs yëpp ñi ngi ci biir ñi mën a jàppale ci financement ñi ngi ci biir ñi mën a jàppale ci technique bi ñi ngi ci biir parce que fàtte naa leen ko wax mais euh, euh, service technique yi yëpp ñi ngi fi woon muy ARD yi di service technique euh, sectoriel yi nekk ci région yi mais aussi les porteur de projet ñi nga xam ne communes yi lay doon les collectivités territoriale mën a doon ay association de développement mën a doon ay direction sectorielle donc loolu lu tax ñu créer concept bi mooy dañu dem ba forme financement bi dafa changé léegi financement bi dañu naan la 80 pour cent laa lay jox mobiliser 20 pour cent yi seetal noo koy mobiliser léegi nag bu njëkkoon nga xam ne vraiment euh, financement euh, euh, mobilisation financière dafa yomboon ñun ñoo doon def lépp ñun SOS Sahel ak suñuy partenaire SOS Luxembourg SOS Sahel Sénégal ak suñuy partenaire comme Rotary nga xam ne am na représentant fii ak yeneen fondation léegi nag tey ji dañoo dem ne ñi nga xam ne ñoo moom projet il faut ñu dugal seen loxo léegi tey jii bu doon ñun dañ doon def 20 pour cent kii nga xam ne moom moom projet bi commune bi ko moom wala association bi ko a andi 10 financement bi nga xam ne moom lañ ko war a jox loolu moo andi concept bi ñu taxawal ko ñëpp nag ñu ngi ci biir parce que concept bi yamul ci financement bi ngi dem tam ci technique bi surtout technique bi donc réseau de compétences dañuy mettre en place service technique sectoriel yi bokk ci ay personnes ressources bokk ci structure de recherche ñu ngi fi CNRA Bambey ñëw na ak universitaires yi pour accompagner les porteurs de projet à formuler maanaam ñu ñu tabax seen projet ndax loolu liggéey la tamit liggéey bu metti la liggéey bu yàgg la donc au lieu ñuy dem di fay ay ressources pour ñu defal leen ko ñooñu bu ñu bokkee ci réseau bi donc dinañ mën a yomba liggéey boobu loolu mooy li nga xam ne mooy vraiment réseau euh, je t'accompagne wala plateforme je t'accompagne mu am nag benn boo xam nañ ko taxawal fii au sud mu dans la zone sahélienne mu am bu ñu taxawal tam au nord euh, Luxembourg moom mooy yor donc coordination bénéficiaire c'est juste que tout le monde est bénéficiaire euh, les collectivités territoriales yëpp mën nañ ci bénéficier wu woowuñu fi ñëpp nag dix communes la ñu woo parce que loo gis tamit da ngay dem par étape donc mën nañu étape pilote lañ nekk dañoo woo dix communes yoo xam ne moom mën nañ ne ñooy représenté commune Sénégal yëpp mais tey ji ku nekk commune euh, Tambacounda wala Ziguinchor bu ko neexee demandé su fekkee ne respecté na conditions yi ñu yi ñu teg te conditions yooyu moom la ñu wax war waxtaane tey ko suba mais donc dix communes yooyu nga xam ne ñoom la ñu woo ñun nag dañoo seet li nga xam ne nit ki da ngay def li nga xam ne foofu nga mën a yem en attendant ci trois régions la ñu nekk Thiès Diourbel Fatick fa lañ yemagum ñu woo ci 10 commune yoo xam ne ñooy représenté yeneen communes yëpp pour que ñoom ñu mën a donc bu dee am nañ ay idée de projet ñu mën ko donc soumettre ñu accompagner leen ci lii ci des yëpp pour ñu am seen projet mais yemuñu foofu du commune kese moom mën a am projet association de développement et de producteurs mën na am projet direction sectorielle wax nañ ko mën na am projet loolu conditionnalité yooyu nag moom la ñuy waxtaanee diggante tey ak suba ñoom nu ñuy def pour mën a jàpp ci projet yi ak nan la ñuy def projet bi ñu mën koo jàpp ci ministère bi mooy les conditions d'éligibilité. Je m'appelle Modou Ndiaye, je suis le maire de la commune de Baba Garage, c'est dans le département de Bambey. Depuis 2012, on travaille avec euh, SOCL euh, dans la commune de Baba Garage. Bon, beaucoup de projets ont été, euh, ont été financés euh, dans ma commune. D'abord, lorsqu'ils sont arrivés, la première chose à faire, c'est d'organiser les femmes. euh, leur apprendre à gérer, leur apprendre à s'organiser de manière générale. Après cette phase euh, d'apprentissage, des projets ont été identifiés dans le domaine, surtout comme l'a dit Madame Fall, de la reforestation. C'est ainsi que des projets euh, comme par exemple euh, des pépinières ont été mis en place. Euh, beaucoup de pépinières dans la commune pour permettre à la commune d'avoir de disposer de, de, Parce que, euh, je le rappelle, c'est un projet de, de, de, reforestation. Et qui dit reforestation, dit disponibilité de, de plans. Par la suite aussi, d'autres activités ont été identifiées pour accompagner euh, ce processus de, de mise en place de pépinières, de reboisement, etc. C'est des projets de génératrices de revenus, comme euh, l'installation de moulins à mille, comme euh, euh, des, des, des, des poulaillers pondeuses, des poulaillers de chair, aussi, aussi des projets euh, de, de, mise à disposition de l'eau, comme des châteaux d'eau aussi ont été mis en place pour accompagner les populations dans le cadre de l'agriculture, dans le cadre de l'arboriculture. Donc, où, euh, en fait, beaucoup de projets ont été faits dans la commune de Babagaraï. En dehors aussi de ce projet-là, comme on parle d'environnement aussi, les femmes ont été accompagnées pour la prise en charge des déchets. Et à ce niveau, beaucoup de choses ont été faites parce que avant l'arrivée de SSL, il y a aussi euh, une communauté de commune des VG d'or qui a essayé de mettre en place euh, euh, une chaîne de prise en charge des, des, des déchets. Mais lorsque SSL est, est venu, elle a essayé de compléter le travail que euh, cette communauté de commune a, été, a, a fait. En faisant quoi En organisant les, les, femmes, en leur donnant du, du, du, du matériel et aussi des financements pour, pour, pour les motiver. Et au niveau, à ce niveau, il y a un centre de tri qui a été construit, équipé. Et je, crois que les femmes ont été organisées, organisées des charrettes. Tout l'équipement est complet. Et on va bientôt aller vers la, le démarrage effectif du travail au niveau de ce centre de tri. Et il s'agit un centre où on va faire le tri, mais aussi on va faire le recyclage. Et à ce niveau, on a signé une convention avec Proplace de Thiès pour le recyclage des déchets, surtout d'ordre Euh, des, des déchets plastiques durs surtout. Et actuellement, on va vers euh, ce qu'on appelle un POAS, un plan d'occupation et d'aménagement des, des, des, sols, qu'on va élaborer avec euh, SOSL. C'est peut-être pour anticiper sur la gestion euh, des terres et des conflits, de manière générale. Donc, euh, SOSL, de manière générale, a beaucoup fait pour Baba Garage. On le remercie et aussi, on espère encore beaucoup faire, euh, surtout dans le domaine de la reforestation. SOSL, bon, Mignon Baba Garage depuis 2012, lié à nous. fànn yu bëree bëri bi mu ñëwee li mu njëkk a def moo di fexe organiser jigéen ñi euh, jéem leen a former encadrer leen ba xamal leen lu bëri bëri ci wàllu euh, reforestation ci wàllu environnement mm, lu ci bëri bi ñu defee loolu ba nopp aussi ñu identifier ay activités yi ñu ci njëkk identifier moo di euh, lu mel ni ay pépinière parce que ku bëgg reboiser aussi il faut nga am pépinière bi ñu ñëwee jàppale leen jigéen ñi ñu installé ay pépinière ci commune bi pépinière yooyu bi ñu ko installé jàpp nañ leen pour ñuy def reboisement reboisement boobu aussi bi ñu koy def aussi dina leen gunge yeneen activités yoo xam ne day tax ñu gën a sawar activité mooy lan fexe nan ban am ay moulin à mil may leen ko ñu di ko jëfandikoo euh, di ci am euh, euh, koom-koom am nañ aussi ay poulailler yoo xam ne tabaxal nañ leen ko équipé leen ko ñu koy jëfandikoo aussi di ci ay koom-koom donc wàllu ndox mi aussi fexe nan ba ñi nga xam ne soxla na ndox aussi ci war a bay ñu defal leen ay forage ñu ciy bay bu loolu jàllee aussi wàllu mbale aussi ñu leen ci jàppale ndax toujours environnement la ci wàll woowu aussi fexe nañu ba euh, organiser jigéen ñi wutal leen matériel euh, jàngal leen euh, xelal leen ba fi mu toll ñu ngi war a jublu ci loolu ndax fekkoon na sax benn ONG bu ñu wax les Végéo d'or une communauté de communes des Végéo d'or en France defoon fa ay investissement mais ñoom bi ñëwee ñoo ko complété gën leen encadré ba fi mu toll ñu ngi jëm ci wàll woowu ndax tabax bi tabax nañ ko ba noppi centre tabax nañ ko ba noppi équipé nañ ko bon formé nañu jigéen ñi. ñu ngi waaj a commencé euh, gestion de des déchets bi. non vingt pour cent yi du ñu dérangé ndax déjà ñun xam nañ ko bu jëkkoon te daawuñ ci def lu bëri kon bu ñu ñëwaatee nii cette fois ci da def ñun pare nañ pour def déjà phase bi ñu nekk ñu avant que réunion bi commencé ñun xamal nañu loolu ba phase bi ñuy déroulé actuellement ñun si nañ benn convention ak ñoom boo xam ni euh, les dix pour cent ñun dañ ko war a verser